intersection bu gaar bu ndaw bi ci station Serigne Gueye bi jamono bi ni nga xam ne noonu la yoon wi mel jéggi na dayoo embouteillage yu métti métti moo fi am bés bu yàlla sàkk diggante charrette moto oto yi ba ci véhicule de transport yi nga xam ne dañ fiy jaar jëm Linguère ak maatam li indi jafe-jafe bi mooy canal bi nga xam ne moo nekk ci digg tali bi mbooleem couverture yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekkoon yàqu defaruñ ko bala ko yeneen kàmb yu métti métti yoo xam ne ñu ngi ci tali bi yi di ko maytu sàkk diggante bi jaar fi day métti lool te soriwul dara fi nga xam ne moom mooy jumaay Tuubaa ji ndax digganteem daanaka matul 150 mètres lii la nag jur na njàqare ci mboolem ñi nga xamante ni dañ fiy jaar. waaw fii moom métti rek la def ndaxte boo xoolee fii intersection la boo xoolee quatre voies yëpp daanaka fi la dajee. ñu ko mën a lu ñu jël moom dañuy sonn lool fii daa bëri pax dañuy tegg rek mooy bari lool bu lu ñu jël moom. parce fii nii. Rigole bi naka jekk moom mën naa ne nii la meloon ñun gisuñu maire mais wax nañ ko conseil maire ñëw na fi ba agsi ñu wan ko ko wax ko ko mais taxul ñoom ñu def ci benn saafara. jëm ko jëm ko curé bu ñu ko curé yoo pare incha allah léegi fexe am canalisation yoo xamante ne dina mën a yóbbu ndox bi rek waaw mais xam naa ne daal c'est un problème. man damaa jàpp ne canal yi dañu waroon di curé avant nawet bi. wër canal yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu curé leen génne suuf si la nekk lépp ñu dund ko loolu mooy waral ndox mi di dem waaye aussi tali bi ci boppam dafa def ay pax ci diggante bi ay pax yu mag loolu mooy tax ndox mi du agsi ci canal bi day tak ci diggante bi loolu tamit dañ ko war a saafara xool daanaka li wër jumaa ji lépp ay ay tali yi fi nekk ay pax la loolu ku seetlu ku wër jumaa Tuubaa da nga gis lool garage yu chauffeur yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci gaar bu ndaw ñoom nee ñu jóg nañ dox ci ngir kilifa yi mën koy defar waaye boobaak léegi amul lenn loo xam ne kilifa yi jëm nañ ko ci ñoom sax yenn saay ñoom ñooy jël seeni initiative bopp su tawee ba sawet ñuy fexe jële fi ndox mi ngir defar li nga xam ne moom moo di circulation bi mu mën a yomb parce que dajale woon nañ xaalis waaye am na loo xamante ne si mënu mënuñu ko ba defaroon ci ay kubéer mais kubéer yi ñu ci oto yu mag yi jaaree ak seen day daati wàcc nga xam ne ñun kon liñ mënoon def ko fi ne nii kee di di ndox ma ne ci ñun ñii bokk ajuma la waxoon moom fi moo ca moom mënatut a xaar ajuma ji il mu jéngu ko ci alxames bi lu ci man mu def ko ba ajuma ji ñu ànd koog moom waaw moom ab safoor la safoor laa mais que seen bu laa nekk lii damaa xëy suba mun a xëy moom loolu moo tax ma ñëw fii ñëw di dindi Touba nag commune rurale bi ak ñu yëpp doo ko a defar mais commune Muntaxa lépp jox ko ci kanam larka ci boppam rek la nekk ñu ne doonga Sëriñ Touba la ñoo xam bu ñu lu ñu naqari lii rek lañ ci mën wax rek lañ ci mën wax ak def li suñ sago ndax Touba li fi génn ci biir sa amul fenn ci àdduna biir sa maire Touba bi amul fenn sareet yaa ngi fay taxi yaa ngi fay biir yaa ngi fay ñëpp ngi fay mais Touba ki mun defar mbedd yi dara dara bopp rek lañu defar seen bopp rek nañu dimbali nag borom charrette yi nga xam ne it ñoom it bés bu yàlla sàkk dañ fiy jaar jëm ci marché occas bi nga xam ne soriwu fi ñoom it jafe-jafe yu métti métti li ñuy dund rawatina ci seen fas yi. bilaay met na ci fas lool xoolal diggante bi ni fii mooy loolu route su ma juumul daanaka rek mooy loolu gis nga ay pax ak taataay yi am nga xam mooy nag télé daa pante ku ñu si jàpp léegi leen bëgg ñun kase. diggante bi nag laaj na ñu defar ko laatay màggal Touba lu ko moy dana indi gàllankoor ci dem beeg dikk bi ba ci sax askan wi nga xam ne ñoom ñoo fiy jaar duñu am fenn foo xam ne dañ fa mën a teg seen tànk léegi nag bu police yi xasee wàcc fii nii lay daal di jaxasoo rek ñu toog di ko seetaan te ni mu jegee dëkk bi nag wax dëgg yàlla gis nañ ko circulation yi ni mu taxawee nii daanaka bu police yi nekku sax da am jafe-jafe waxuma la jamono nawet bi ñu nekk kilifa yi mu mel ni gis nañ bërëb bi waaye jéemuñ ci dara ndax bi ñu xëyee am na cortège bu gouverneur bu Diourbel jaar fi ànd ak su préfet bu Ndaam ak yeneen i kilifa doon ne meeku yenn bërëb yi nga xam ne mbënn mi da leen a sonal waaye nii lañ rombee fi nga xam ne moom moo di intersection bu gaar bu ndaw bi taxawuñ sax xool ko lu ni mel nag metti na lool ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur si ñoom ñëpp gis nañ ko ñu ngi fiy jaar dañ cee sàkku benn pexe nag moom daal dañ cee góorgóorlu wut na maire nañ ci dimbale bokk defloo wuñ ko dara lii koy defloo lii na ñun teguñu ko baneen leneen li ci def doongay suñ tubaay mën nañ koo defaral seen bopp nan ñu dimbali gisuñu kenn ku ci ñëw ku ñu ci taxaw gisuñu maire waaye gis nañ adjoint maire wala euh, conseiller maire mu ñëw fi nu wax ko ko mais waaw dinaa ñëw la ñu wax depuis boobaak léegi booba nawet bi commencé gul wàqe woon nañ ko ba ba ba ba toog di leen xaar mujj ñu ñëw si mujj gi affaire bi barre circulation bi ñu suulaatal ko suñu bopp suul ko ba nga xam ne canal bi daa mujj sakk spécial léegi nag dañ ko bëgg a wàqwaat ndox mi di dem moom canal bi bu ñu amee nuñ ko mën defaree defar ko bu ñu ko amul nuñ ko mën a defaree ñu bàyyi ko ñoom ñu ko war a defar xëy na danañ ko gis bërëb bi dafa nekk salaba yoon boo xam ne soriwul jumaay Touba te it kilifa yu bëree bëri dañ fiy jaar rawatina ñi nga xam ne dañuy dem dindi seen oto yi bu ñu fi romb jafe-jafe yu métti métti la ñuy jànkonteel laataa ñu koy traversé. fii moom naka jekk dafa jege jumaa ji moo tax te waa ndindi fi la ñuy jóge di fi jaar waa ndaamaatu fi la ñuy jaar ci intersection bi kon dëgg-dëgg war nañ koo mën a defar di jëm ci biir marché bi pour léegi bu ñu ko defarul day gën a rek canal bi laaj na defaraat daal di koy tëj tëli bi it noonee ngir waajal li nga xam ne moom moo di màggal tubaa gi ndax bërëb bi li fiy jaar ci jamonoy màggal lim bi kenn mënu koy xayma rawatina oto yi nga xamante ni suñ ci doolee ko su boobaa fii dana jéggi dayoo. fii ak màggal bu ko jëfur kay moom maritaali màggal kenn du fi mën a màggal moom sëñ bi mooy daj dëpp gi lii moom buñ ko saafarawul buñ ko buñ ko buñ ko saafarawul fii màggal moom leneen la wax waaye déew su fi jaar. na indi gàllankoor bu rëy rëy fii fi ne nii donc daa am gàllankoor te màggal ñëwagul. ni dëkk bi mel nii ak mbedd yi niñ euh, feese ak ndox ñuy séntu ay millions yi nit loolu xaw naa doy waar ci ñu koy séntu li ci ci waru garbu nit ñi nag mooy kenn ku nekk jàpp na yaa ko war a defar waaye nag na ñi nga xam ne dañ leen dañ leen jox baatu dëkk bi ñooñ moom fu ñu mën a jëlee mooy rek war nañoo fexe ba jéem koo defar. dina xaw doy waar dina xaw waaye nag euh, gëm naa ne moom ak euh, pas-pasu. taalibe yi fi ax màggal dinañ ci euh, solution incha allah. loolu lépp warees na ciy jóg nag ñu xool naka la ñuy def ba balaa màggal situation bi ñu mën cee génn ak lu ndox mi bari bari bari dëgg la Touba dafa màgg état mi ngi def li mu mën ndaxte wax nañ def nañ ci assainissement bi 11 milliards. Euh, ñi fi nekk tamit ñu mel ne Touba ci ñi ngi def lépp luñ man waaye Touba lépp luñ ko nattal rek day romb foofu parce que ni muy màggee la ni borom mel la dëkk bi mel amul amul ab yamukaay day saa bu xëyee day gën a yokk li mu waxoon ni sama tey junne day gàccal sama démb loolu day feeñ ci dëkk bi saa bu ñu xëyee nit ñi day gën a yokk dëkk bi day gën a xat loolu nag képp koo xam ne kilifteef gi say loxo la nekk wala am nga ci responsabilité da nga koy war di bàyyi xel waxi sëriñ boobu naan sama tey junne day gàccal sama démb merci beaucoup